والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمر قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك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 danañ jot la seen borom dële sant yàlla bi nu may wérug ni def ko ndax ab jullit bu ne li ko bàyyi ci kaw suuf bàyyi ko ci àdduna mooy jëf lu ko may àjjana daw lu ko def moytu lu ko taye dugg sawara ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koor ku ko màng ba mu jeex sunu ubbil na la bunti àjjana tëjal na la bunti sawara kon sunu borom baaxee nga mën a def loolu war koo sante sunu borom ndax nit amul lu gën a kawe ubbil nañ la bunti ay tëj nañ la bunti sawara waaye nañ ci jànge lu bari bunti buñ ko tijjee ba noppi ba nga dugg ci na nga fexe buñ ko tëjaat bunti biñ tëjit na nga fexe buñ ko tijjiwaat loolu nag jëf rek ci cay topp la ndax koor dafa mel ne weer la woo xam ne dañu la ciy tàggat di ci jàngal. li nga war a dundee ci fukki weer ak benn ci àdduna weer la woo xam ne dañ la ci jàngal lu bari ragal yàlla maandu moytu moytu caaxaan moytu wax ju bon moytu jëf ju bon weer nag loo ko jàng war naa mokk tari nga war naa yomb te diirub weeru koor géppit nag ñëpp ngi moytu ci jëw wax lu noo dëgg di ko ak bañ koo jëf loolu nag boo ko defee fanweeri fan war naa bokk ba nga tàmbali cee jam ndax jëf moom lu mu ndax boo ko raxasee ba mu set nga teg ko ne le lu ne mën na caa rek loo cee def mën koo jëfandikoo waaye boo tàmbalee di ko taxalaat bu yàggee loo cee defee kenn du ko jëriñoo boo demee nag ba raxas sa bopp ba mu set da ngay fexe ba mu taxaat te jamono toll na foo xam ne nii taq-taq yi bari na euh, lii fépp bari na gàllankoor yi bari na. ñi dem nañ ba xamatu fi ñu teg seen tànk def lu bon ak wax ko ak yéenante ko xàmmeetuñ ko ak def lu baax jamono nag su àggee foofa yàlla mbugal na eh, jaam ñooñee waaye nag nun mën nañ caa mucc mën na nooy bañ a dal ndax lii sëriñ bi wax ci xas eh, xutba bi léegi bu ngeen ragal yàlla da ngeen wut wasila am na nga wasila wasila weesu wut buum nga xam da nga ciy jàpp mu keram lay àggale fa nga bëgg muy sa borom wala foo bëgg a foo bëgg a bi ñu jàppee Serigne Touba nag dañ cee war a jàpp aw jàppin waaye lang mën naa tax bu yëngut amee mën naa mën naa rot jàpp bu dëgër nag lu yëngutu bu bari bari bari doo root war nañ jàpp sëñ bu baax te jéem a jàng sëñ bi xam ko noonu Cheikh Mamadou Mountakha di yàgg yàgg a wax rek jàng sëñ bi te dund ko dafa jot ci noonu ndax sëriñ bi ñuy wax rek ba mu fi jógee bi fi agsee ci jamono du fekkoon fii jamono toll wala lu koy yées fa la toll woon ci caaxaan not wax lu bon not foo not mu xeex ci bëri ci ba jëlee ko fi ba tànn ci aw nit ndax ñëpp mu leen si yóbbu tànn ci aw nit ci boppam teg leen ci yoonam bëgg moo ko indi woon ci sancug Tuubaa gi fu mu mas a sanc dooloo ko fa yóbbu mooy rawale ñi nga xam ne bu ànd naa ak ñoom sonn ci lool ak njabootam sonn ci lool waaye loola daf mel ni doomu aadama ñu ngi koy bëgg a fàtte bu baax a baax a baax ndax Tuubaa gi dëkk bu rawukaay la woon da ko mucc looy kuñ ne Touba la ba sa jógee rek dañ lay xoolaat di séentu ci yow jikko ju baax wax ju baax ak melokaan wu fet waaye nag euh, ñu ngi mu ngi mi ngi bëgg a rëcc boo gisee sunu borom naan bu anfusukum aleykum naar mooy teen sawte mooy seen njaboot nit ñi dëggale ñu ngi koy moytu waaye moytu luñ seen ko njaboot ndax doom boo ko juree tegoo ko ciw yoon bàyyi ko ba def lu ko neex fu mu mu fanaan baax na fu mu yendu baax na lu mu sol baax na lu mu mel baax na te du tudd taalibe yaa ngi koy lor te lu mu def defit sa bopp lay këpp mooy yeew xar muy daan ci biir kër rek te dëkk bii nag ku fi gàtt rek da nga ruus fi ne ku sagub dëkk bi ñor wala sagub sëñ Tuubaa ñor la bu fi gan ñëwee danga nga ruus ci melokaanu gone yi seeni jëfin seeni doxin boo dee dox da jàppale da ngaa ci beneen dëkk bu dul Tuubaa ci da gone yi mel col ga waxin wa melkaan woo xam ne nii ku ñu dëkk Tuubaa sax jomb lañ ko def borom kër yi di ko seetaan waaye ñu ngi seetaan loxo xam ne du mbégum sëñ Tuba képp koo xam ne nag yaa ngi xool si biir kër loo xam ne gënul sëñ Tuba la lay la koy faj sëñ bi koy fajal bopp te kenn du koy moo tax yu bare ba dana dal ci daw kaw doomu aadama muy xam fu mu jógee te te moo ko faggul boppam kon nañu jàng sëñ bi canam meloon canam daan dund canam daan yare ak canam daan jàngale ak njaboot gii fi bàyyi nañ daan doxe ñii mu yar nañ daan doxe ñu xool noona te bàyyi caaxaan yi sëñ Tuba ne woon na fuuma fuuluma yoruma pay daara laa yor kon nag nañ bàyyi xel la ne daara ji sëñ Tuubaa yoroon daara nag lu caag lu waay lu waay lu waay sol lu neex waay bel moo xew ci dëkk bi nañ delluwaat yaraat gone yii te jàng leen sëñ bi ñu dund ko daf ci lañ toll dañ boole góor gu waar góor góor waar baax a baax ci jëf yi ragal sunu boroom ci jëf ci wéet ak wétliku te bañ ko yem rek ci làmmiñ topp sëriñ Tuubaa nga xam ne kenn ku de la nga nekk ba lu sëñ fekkoon doo soppiwu doxin loolu boo ko defee ëllëg si biir foofu sëñ bi nekk mën ko faa fekk waaye jëf joo xam ne nii doomu aadama yi rek ngay nga ciy daw di ko ci ragal di ko ci xoo di moytu ba nga xam ne sëñ baa ngi jàkkaarloo yow bu ngeen ko gisee mi ngi leen di gis ngeen ko gisee mi ngi di gis nañ jéem a sagal sunu bopp ci sëriñ bi na dimbali sunu bopp ci sëriñ bi ndax sëñ ba la am na ko ba noppi ñam yore am na ñam am nañ ko ba noppi ñu ñoo toll ci sàkku kon nag noonu su borom boolem dimbale te teg nu ci yoon bi nga xam ne moo di jëriñ tey nu teg ci njaboot ga noo ngi baalu di baal àq ñëpp yal na sa bor boolee baal fi rek lépp lu ñu ragal ci àdduna muy tawat muy lor muy yàq yàqutuy jikko ak lu mën di doon ndax yàqutuy jikko yi boo raw tawat ji yi ñu doon jàmbate yàlla ko seen warum jëlee te bañ ko defee déedéet def nu taale bi dëgg dëgg taale bi sëñ tuwaay bi nangu sunu taale bi ñu teew ko dëgg lu déwén te kenn bañ manki dëgg asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu min te ñaanal ko nag ñaanal kilifaam gii di Cheikh Mamadou sunu kanam ak Cheikh sëñ Cheikh Mbacké Abdou Latif borom pénc mi